la une des quotidiens de ce euh, mercredi 7 euh, avril 2021 et on commence naturellement avec l'Observateur. Avec l'Observateur qui donne la parole à Serigne Saliou Thioune, euh, c'est euh, le fils de Cheikh Béthio Thioune. Euh, il parle des préparatifs du 17 avril. 17 avril, c'est un peu la rencontre de Serigne Saliou Mbacké et Cheikh Béthio Thioune. Euh, Serigne Saliou Thioune qui parle des retrouvailles de la famille Euh, de, euh, du défunt Cheikh. Et puis, euh, il raconte également ce que mon père m'a confié à Bordeaux avant son décès, les directives de Serine Cheikh Saliou à l'autre partie de la famille. Il fait également des révélations sur les voyages de Sorna Aïda Diallo et ses co-épouses. pandémie de coronavirus, ramadan et campagne de vaccination contre le Covid. c'est une coïncidence pas tout à fait heureuse, nous dit l'observateur, l'horreur à Louga, euh, sur le bandeau de l'observateur. Elle accouche dans les toilettes, fracture la mâchoire de son bébé, puis le lacère à mort. Ah, ça, ça, ça, convoque un peu le, la chanson fétiche de Chonsek. Hein? Ouais. jur doom sànni voilà. rey ko c'est cruel. c'est hmm. enquête également qui nous parle de gouvernance foncière le Sénégal terre de conflit et puis c'est la PDVRAV euh, au niveau de la commission du croissant lunaire. Aïda Sagna victime ou djihadiste c'est un peu le procès pour euh, terrorisme. quotidien qui mène l'enquête sur euh, la, la lutte contre le trafic de bois en Casamance, c'est la vaine bataille, la vaine bataille pour euh, parler du bois de veine, la Gambie refuge des trafiquants, les deux États impuissants. Le soleil qui euh, éclaire sur le financement de l'accès universel à l'électricité en 2025 les partenaires promettent déjà plus de 437 milliards de francs CFA au Sénégal. Libération qui euh, nous parle de ce monstre en flagrant délit de viol à Ben Barak de graves dans une école à Mour. Les deux victimes présumées ont de 4 ans. à Ben Barak, Ibrahim Mbaye, 34 ans, introduit violemment son doigt dans le sexe d'une fillette de 3 ans. Arrêté pour viol et pédophilie, il reconnaît les faits en garde à vue et jure qu'il est incapable de contrôler ses pulsions. Amour, le tuteur d'une fillette âgée de 3 ans et demi, accable un membre du personnel de l'école académique Jeanne d'Arc. La police ouvre une enquête c'est c'est sombre tout ça Fati ah Prodac ANPEJ euh, DER euh, et emploi des jeunes euh, Tribune se met sur les traces de 140 milliards de francs CFA et puis réunion entre le ministère le ministre de l'Intérieur et, le, et la CONACOC un comité de pilotage transitoire mise en place euh, sur le bandeau de Walf Quotidien accusation contre Télico Madiambal persiste, signe et détaille. Et puis, euh, Wolf Quotidien qui met à sa une le financement du programme d'accès universel à l'université, l'électricité d'ici 2025. Les bailleurs traînent les pieds. Les échos qui euh, nous parlent de cette visite du demain du chef du gouvernement espagnol au Sénégal. Il s'agit de Sanchez. Il sera à Dakar pour négocier le retour de nos compatriotes compatriote et puis défaite face à l'acte 2, Eumeu Sène conteste et dépose un recours auprès du CNG. Hier, en tout cas, le face-à-face Modou Lô Ama a tourné au fiasco. L'AS euh, qui revient sur cette reconnaissance des droits des homosexuels par le Sénégal. Les États-Unis reviennent à la charge et l'armée exhibe son arsenal, c'est le renforcement de la flotte aérienne du Sénégal. Vox Pop euh, qui euh, met sur son bandeau les avocats de Abré qui saisissent le juge d'application des peines et puis le Forum civil qui euh, s'intéresse un peu à l'installation d'un parquet national financier. Le Forum civil esquisse la machine de guerre. Le thème 450 milliards du président pour créer des emplois. Des économistes décortiquent les failles du dispositif. Et puis les Guinéens asphyxiés par la hausse des prix des denrées alimentaires. Sud Quotidien qui nous parle de ce programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes. L'emploi fast-track passé à la loupe euh, dans Sud Quotidien. Record qui nous parle de ce quart de finale aller entre le PSG et Bayern Munich avec les photos de Neymar de Serge Gnabry qui ne jouera pas cette rencontre. Paris rêve de revanche face à Munich et puis Chelsea. Attention au faux des Dragons. Les Dragons, c'est les Portugais de Porto qui ont éliminé euh, la vieille dame euh, de Cheikh Tidjane Diaw. <laughs> Stade Bayern PSG, revanche à haut risque à Munich. Et puis Ghana et Diallo pour surprendre l'ogre euh, Bayern, euh, l'ogre munichois. C'est aujourd'hui. Sous nos lampes, pour terminer, vive tension, jet de grenades lacrymogènes, le face-à-face Amma Modlo tourne au fiasco. Voilà, c'est tout Fatih. Merci beaucoup, Mortala, pour la revue des titres. Je pense qu'on peut y aller pour la pensée africaine du jour, n'est-ce pas, cher mhm. Oui. Modou Fall va entrer en action. Oui, ou Chérif même qui est venu en retard. Mais bon, Chérif, ces temps-ci, quand même, il est devenu très très fort. C'est un proverbe wolof. C'est voilà. tout nouveau penseur. Ah. Le proverbe, il est ailleurs, certainement. C'est un proverbe wolof. Ce n'est pas parce que je veux de la sauce que je vais me retourner la marmite chaude sur la tête. Chérif, tu dors bëgg soos du ma saxar sotti ko mar naan sax war laa tax ah, waaw ah, par bëgg soos aussi bu la taxal euh, la fin souvent on dit que la souvent le cas c'est pas souvent le cas. c'est pas souvent le cas. il est très inspiré, hein, notre catalan national. Non, cher, il est bon. il est bon. il te trouve vraiment des explications justes. Mais Mourou, quand même, moi, c'est mon philosophe préféré. Et puis, quand il a ses explications alambiques, moi, je me retrouve dedans. Parce que parfois aussi, je suis à l'ouest que lui. Plus mode, quoi. Euh, mais... <laughs> il, Diao de, faire une enquête quand je mets euh, le truc sur WhatsApp. je soupçonne qu'il travaille. vous ne direz pas non. Il googlise. C'est un journaliste <laughs> averti quand même. Cheikh il n'a pas l'habitude de prendre des risques. Et c'est bien. Nous, on découvre le proverbe. En quand même les proverbes. Ah c'est vrai. Surtout ah euh, Quand tu essaies parfois, ah absolument rien. vraiment des explications aussi longues quand même que compliquées. étude finalement tu te perds moi je préfère vraiment les explications de Modou Fall. voilà Fall Fall Fall le sobre. voilà ce n'est plus le même Fall on ne sait pas ce qui s'est passé. Euh, entre-temps mais il revient tey tey gis ngeen fi mu génn. <laughs> tey dafa dafa def sañ seet bàyyi na Modou Mbane li ñu doon wax moo tax nga bàyyi semis yi. <laughs> le le sobre <laughs> de toute façon en tout cas Pierre voilà. Pierre amène les palmarès pour notre Modou Fall national. Euh, toi aussi euh. Pierre ah c'est bon wàcce naa la parce que mi ngi commencé waat nee na nag jàmbaar dawul dafa uti doole. uti xam naa le retour de de mhm. sera vraiment féroce mais on on se on se contente de ça. El Hadj <laughs> incha allah merci beaucoup. <laughs> merci beaucoup <laughs> les gars kon lamb yi euh, kii Ama Balde ak Modou Lo ji. Mhm. na ci organisateurs yi nañ xoolaat. parce que mhm. man la muy juri ëllëg la parce que day ñaari mbër yoo xamante ne ils sont populaires fi mu dëkk ay gone leen topp. Mhm. donc na ci gars yi anticiper. ci y euh, avait pas de sécurité et puis ceux qui habitent aux alentours euh, ou bien par exemple ce qui passait on ils avaient peur quoi par rapport à ce qui s'est passé hier je pense que c'est pas une première aussi donc il faut qu'on qu'on trouve une solution à lu tax lu tax quand même euh, combat war a euh, jur tension bu toll nii euh, sport kese la mhm. surtout sport entre ñun gis nañ fii ci àdduna bi am na ay match yoo xamee ni enjeu bi dafay doy waar mhm. ay final yoo xamee ni day métti mais taxul ni dañ koy jouer mu jeex ku nekk ñibbi këram. malgré enjeu bi du mu am doole. mais bii lamb la boo xamee ni. mais bii sax c'est normal Diaw parce que. dañ daan bëgg xam ne non non non violence mënul bi engouement bi tout non je veux dire parce que day mbër yoo xamante ni ça rappelle. Mm-hmm. mooy Modou Lo mi ak Balla Gaye seen premier combat parce que ñoom ñaar ñi mm-hmm. dañoo yàgg ki woon voilà mais ça n'explique euh, violence bi di ci am ay casse non mais mais Diaw c'est-à-dire sax ba kenn du leen nangu sax ak yi ci seen ci seen organisation non c'est-à-dire entre les lutteurs amul problème c'est ndaw ñi la loolu mënoo wax ñu def ñoom ñoom paramètres yooyu a nga dul a contrôler non non mi ngi mel ni mi ngi mel ni nga ñëw naan entre gis nañ fi benn final Golden State xaw ma euh, Cleveland. Mm. ñu ñu fekk leen seen dëkk match set dóor leen fa. Mm-hmm. muy tension bu métti mais match bi dafa jeexal supporters yi ñoom ñëpp a génn dem ñibbi. te loolu fekkoon fii Sénégal waxuma la làmb mais fekkoon Sénégal gis nañ fi li fi xewoon amitié stade amitié d'Ivoire ñëw dóor ñu fi. gis nañu ni mu mujjee. Mm-hmm. cycle violence boobu nekk ci ñun la ñu war a dindi. war a ko parce que c'est pas normal. ñun nous pas mm-hmm. sportifs. nous ne pas et puis et puis nous sommes vendre quand même ce sport assez original. qui est passion bi violence bi ñu ci dugal moom mooy jaay combat alors que ouais, na do euh, euh, mais moo tax pour man Chérif nga baal ma pour man euh, face à face ah je pense que ñoom ñi leen accompagner rek doyoon na. Mhm. surtout en cette période de pandémie léegi lan moo tax ñu accepter situation boobu ba mu mujjee am ci dérapage je mhm. pense que aussi wax nañu organiser sorte que genre yi bu ñuy tasee ñoom ñu ñu siiw ñi seen face à face yi ñuy am déjà diggante ñaari mbër mhm. ñu yàgg tëkkonte la Modou Lo bi mu yeggee ci sphère bu mag bi yàgg na ama rampe ñëw tolloog moom c'est-à-dire les supporters yu Ama yi seen bopp ñoom déjà. gis nañ ni Ama mën na daan Modou Lo. boo xoolee engouement boobu passion boobu nekk ci ñoom. xam nañ ne lan nga ni Ama mën naa daan. mën naa daan Modou Lo. d'accord moom yaay daanaan yaay suñu sport yaay suñu kii suñu suñu. non dëgg la yaakaar la bu bu nekk ci ñoom c'est-à-dire mm-hmm. donc làmb ji day mel ni euh, Balla Gaye Yékini ba day mel ni Balla Gaye Modou Lo bu njëkk ba cest à seen face à face. bu ñu ci jëlul matuwaay yu mën mhm. na dégénérer parce que ça peut dégénérer et ce sera trop tard je pense pour prendre des mesures c'est-à-dire foog ñu jëlee sécurité yu mat Mmh. sont deux lutteurs populaires. Mmh. ci yoo xam te ni pour nga mën leen contrôler foog. sécurité en popularité violence. dara mënu ko non c'est-à-dire jaww non violence dara mënu ko mais mais mais parce que xam ne làmb ji lu ko yàqoon. violence parce que Balla Gaye Yékini ñoom ñooy diwaan xeex bi ci la ñu dàqee Radisson. violence ngi nekk mouvement de foule la ñu ngi nekk mouvement de foule la. loolu la c'est ça mënoo ko contrôler parce que mouvement de foule bi. jafe na woon contrôler démb mm. déjà que am na journaux yu bind nii mm. am na ay bande yoo xam ne dañ ci rax ah mais loolu loolu kay loolu kay c'est une évidence c'est une évidence après loolu day wane ni mm-hmm. peut-être comme li Fatou wax mënoon nañu euh, organiser kii bi sans pour autant mu am ful mm-hmm. parce que déjà pandémie bi mi ngi fii damagul mm-hmm. que bu ñuy organiser yu mel nii au moins mu am ay garantie de sécurité yoo xam ni. Mm. nit ñi foule yi du déborder. Mm-hmm. mais bu déborder rek. après nii lay mujjee parce que ñi ngi wax ni les supporters de Modou Lo. les de non mais par exemple non xam nga war a jël en compte. ah ma ñoo bloqué Modou Sénégal. non mais c'est juste ça cest à par exemple imagine ñu organiser face à face bi biir des médias xëy na. bu boobaa nit ñi nombre de nit yi ak seeg Modou Lo dinañ ko calculer mais supporters yi ñëw fan la nekk alentour bi lañ nekk ci mbedd yi lañ nekk. foofu la ñuy bloqué. ak seen i mais mais dérapage agression yi tamit xam nga lay olof naan ay du yam si bopp borom léeg-léeg sax mën na am pour xumbal ni mais après askan bi ñoo ci loru parce que suñu paree. day am agression day am ay kii et violence boobu Modou dagg la mu ñëw la Chérif on n'a jamais dit ça. violence bi dañ ko dañ ko parce que rek li am li am ni face à face bi mais autorité bi pour donner lan lañ koy waxee ti l'exemple mun nañ ñëw ni voilà combat bi à huis lañ koy kiiwee benn supporter du fa ñëw puisque lii ngeen wane ni ça image yaa ngi noonu ñëwee ci terrain bi dangeen ngeen su ngeen ñëwee ci stade da ngeen nar reyante nit du seetaan si ñu bàyyi leen ñu bëre euh, à huis clos mhm. mais mais mais foog xam ni que violence bi warul ah, ànd ak sport la violence ne doit c'est que la lutte ay après ñu fi ñu la violence ne doit pas régner en nit di ci loru ay dégâts matériels c'est pas mm. c' est pas du tout normal et puis euh, gisoon nañ fi xeetu violence yi taxoon na ba am yenn sponsor yoo xam ne dañu mujjoon loolu xam dañu génn parce que sa image mënoo ko associé ak yenn xeetu ba pare hôtel yi daaxuñu fu ñu daan defay face à face bu fàttali ni dañ daan defay ay yenn hôtel yoo xam te ni absolument mais ci Balla Gaye Yékini bi ça a dégénéré mais ça a dégénéré mais amoon na ay kii ci euh, CNG bi ay mesures yu ñu ci jëloon pour pour il est heureux d' apprendre que après ils l'ont annulé parce que pour des raisons de sécurité mais mm-hmm. promoteur bi yu mel nii comme mooy mm-hmm. organisé je pense que premier responsable c'est lui moom mi nga xamante ni quand même moo war a wuti force de l'ordre

amul mais ils ont sanctionné durement ba léegi supporter anglais yi ñoo fi gën a yaru mhm. stade anglais anglais yi ñoo fi gën a sûr mhm. mais parce que dañoo joxe exemple mais soo gisee phénomène bi ngay bàyyi di bàyyi di bàyyi. Mm-hmm. yaakaar ni moom day jox affaire bi ampleur da koy mm-hmm. jox. da koy à la fin daf koy yàq. Mm-hmm. Eh, suñu suñu suñu sport la ñoo ko moom. donc ñun ñëpp am nañ ci suñu kàddu. et puis euh, c'est plaisir bu ñu gisee ay doomu Sénégal yoo xam ne itam ay euh, lutteurs lañu ku ci mel ni rëg-rëg te am taxawaay bu am solo ci événement yi c'est une fierté pour nous. et li li Cheikh Tidiane wax aussi bu sponsor yi dawee. xam nga làmb bu luñ mën a wax rek am na aussi lu mu ñàkk parce fekkoon su combat daan mës a am mais dañ ko daan waajal pendant des des des mois nga xam affiche bi mais jouru combat yi mujjee da gis yoo xam ne ci jouru combat bi la xam donc am na lu bëri lu wàññee ko et c'est à nous quand même ñu xoolaat merci beaucoup les gars euh, revue des la woon ak seen jàngatu bopp parce que il est 7 heures et quart léegi-léegi <laughs> Mortala on te remercie rendez-vous demain incha allah euh, même heure avec toujours ce même plaisir léegi-léegi euh, dañuy dem ci miroir régional